bon Adji Sarr ngeen di gis noonu waa. Adji ah, ngeen gis nii ar rouge bi. Eh. si kanam Adji Sarr ngeen gis noonu rouge bi Gabriel Kane eh, El Hadj Diouf ñoom ñooy dem noonu gis ngeen ah voilà c'est comme ça. comme Adji Sarr ngeen gis noonu en rouge avec Maître El Hadji Diouf voilà Gabriel Kane Adji aujourd'hui elle est habillée en rouge voilà moom ngeen gis noonu même bu fekkee Saint-Valentin bi jotagul moom déjà anticipé na voilà Saar bon Adji Sarr ngeen di gis noonu waa. Ah, ngeen gis nii ar bi. si kanam Adji ngeen gis noonu rouge bi ah. Gabriel Kane El Hadj Diouf ñoom ñooy dem noonu gis ngeen ah c'est comme ça. bon Adji Sarr ngeen gis noonu en rouge avec le directeur de la Gabriel Kane waaw ànd ak seen en rouge euh, voilà moom ngeen gis noonu même bu fekkee Saint-Valentin bi jotagul moom déjà anticipé na.